Seydi Gassama maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu soxna si di nuyu auditeurs yëpp. yow yaay directeur exécutif Amnesty International ci <coughs> Sénégal alors euh, Sénégal décrété état d'urgence ngir xeex coronavirus waaye bi ñu ko tàmbalee vingt euh, ñaareelu bés bi gis nañu euh, jafe-jafe yu metti takk der yi di dóor ñenn ñi nga xam ne xëy na ñoo nekkoon ci mbedd bi ba waxtu couvre-feu bi daal di tàmbali yéen ban gis-gis ngeen am ci loolu ak xëy na bu dee am na ñu ko jooytu ci yéen. waaw di wax askani Sénégal ne euh, état wu Sénégal am na euh, obligation jël ay matuwaay yoo xam ne euh, moom moo koy permettre mu aar askanu Sénégal contre jàngoro bi nga xam ne moom moo fi nekk jamono yi maanaam Covid 19 waaw état mesures yooyu war na ko jël. te ñëpp war nañu ànd n'est-ce pas jàppale ko ci mesures yi mu appliquer ko nu mu gën yombe waaye loolu su weesu askan lañu nag seize million de personnes toujours dina am ñoo xam ne n'est-ce pas am na ay circonstances particulières yoo xam ne tax na be mu ñibbi seen kër avant couvre-feu bi di jot wala boog dañoo décider défier état ñooñu li yoon santaane mooy dañ leen teg loxo jébbal leen justice yi atte leen ndax am na ay daan yoo xam ne yoon daf ko prévoir ah, mun nga tëdd kaso ay weer ba ñaari at su dee da nga violer maanaam li li couvre-feu bi kon daan yi dafa métti ah, dafa métti jaratul ñuy dóor nit nañ ko jàpp rek ko yoon loolu mooy li nga xam ne moo war alkaati yi moo moo war gendarmerie ak militaire yi nekk ci terrain bi di appliquer euh, état d'urgence. alkaati yi def loolu lan moo leen ci mën a <coughs> fekk. li leen ci mën a fekk mooy mën nañu leen topp ci yoon parce que li ñuy def torture mauvais traitement euh, dóor ay nit loolu yëpp mais ay crime la. crime la yoo xam ne mun ko ci tëri kat mun nga ci tëri kaso at yu bëri te mun nañ la radier simi dax la ci armée wala dax la police te jot nañu fi dax ci at yu mujj policiers yu bëri ak gendarme yu bëri ndax ay genre crime yooyu te fu mu ne nii ñaawte fi ñuy def mais ñu leen di filmer yaa ngi fii et léegi ñi nga xam ne ñoom ñoom lañ teg teg teg teg euh, multitude yooyu mais mun nañu porter plainte kon foog ñu xam ne c'est pas parce que état d'urgence dafa am c'est pas parce que dañ leen yónni ci biir terrain bi pour ñu appliquer ko moo tax dañu war a comporter wu comme ay bandits dañu war a comporter comme ay nit yu exemplaire waaw policiers ak gendarme c'est des agents d'application des lois dañu war a appliquer loi li loi santaane la ñu war a def war def lépp loo xam ne dafa jalgati yoon ah yoon dafa ne nañu jàpp yóbbu commissariat euh, yóbbu jébal procureur procureur euh, maanaam euh, topp loola la yoon santaane yoon santaanul kenn pour nga ñëw di dóor ay nit di leen gaañ wala boog euh, mun na am sax euh, suñu con su continuer nii ay nit ñàkk seen bakkan mm. ndax loolu amoon na fi en 1988. loolu convention internationale yi aussi ndax sooraale nañ ko. waaw dañ ko sóoraale convention internationale dafa prévoir euh, que su dee état dafa toll. ci situation boo xam ne existence am dafa nekk en danger war da mën a jël ay matuwaay moto yooyu mun na ko permettre par exemple lu mel nii liberté d'expression comme ñi nga xam ne ñu ngi doon wootee di naan coronavirus amul et cetera ñu mun leen a euh, euh, euh, noppiloo ah maanaam teg leen loxo noppiloo leen maanaam mun nañ limiter liberté d'expression mun nañ limiter liberté de manifestation dem ci jàkk dem julli loolu yëpp état mun na jël ay matuwaay mm-hmm. pour maanaam limiter ko su dee Euh, dafay maanaam euh, euh, mettre en danger existence su nation waaye li nga xam ne moom la convention mayul état mooy maanaam torture jàpp nit teg ko lu métti nest pas wala jël bakkanam loolu moom convention mayu ko kenn il faut que mu leer ci boppu takkadeer yi mu leer ci boppu ministre yi ñi nga xam ne ñoom ñu joxe instruction pour que ñi nekk ci biir terrain bi exécuté ko. Euh, comme ni ko ay professeur de droit yu bëri euh, fàttalee euh, naan état d'urgence day may ay pouvoir kilifa yi wante teewul recours yi ñoo ngi fii mais est-ce que recours yooyu dina dox toujours ci réew yu mel ni sunu bos nga xam ne nit ñi daanaka dañuy am xel ñaar sax ci ne justice moom na boppam. waaw xam nga Sénégal ñun ñëpp xam nañu justice bi muy doxee état nekk ci parti ci benn affaire rek daanaka justice dafay daal di amay problème pour pour maanaam dogal n'est-ce nu mu war a dogal euh, moo tax recours yi am na fi war nañ ko mën a utiliser ñu ngi ñëpp ñu ngi ñaan na ñëpp daal hmm, alkaati yi daal état bi daal pour ñu bañ egg foofu waaye war nañ fa egg nañ fa egg def eh, recours nga xam ne moom la yoon may même su dee yaakaar nañu ne euh, attakat yi ci situation actuelle bi euh, vraiment recours yooyu du nekk ay recours yu efficace ndax état dafa xam ne nit ñi dañuy ragal fu mu nekk ni Sénégal yu bëri lépp état bi def rek ànd nañ ci eh, ànd nañ ci parce que dañuy ragal Euh, état nag dañu profité ci situation boobu pour maanaam dafay dérive dérive yi nag war waruñu ko nangu. yéen en tant que défenseur des droits humains dégg nañu leen ngeen yëkkati seen kàddu démb ba tey waaye bu weesoo wax ji lan ngeen nar a def euh, ci situation bi ak li jot a xew. waaw li ñu li war a def mooy euh, pendant que événement yi mu ngi déroulé wu fexe ba ñuy ñu koy documenté ah, lépp loo xam ne ay vidéo la lépp loo xam ne ay nit ñu ngi woo ñu koy wax te jot nañu fu ay Kaffrine ay Koungheul ci région yi fu nekk jot nañu ay ay nit yoo xam ne dañu am problème ak police wala gendarmerie kon ñu ngi recueillir ay information di recueillir ay vidéo loolu yëpp dina tax ëllëg su mbir mi dalee ñi nga xam ne dañ leen lor maanaam gaañ leen wala dóor leen et ñu ñooñu euh, ñu mën a porter plainte te boobaa ñu nañu taxaw jàppale leen pour ñu porter plainte ñu am justice di wax ne alkaati yi nag que état d'urgence n'est-ce pas mënu leen protéger su dañu def ay actes yoo xam ne ay actes délictueux la euh, képp koo xam ne def nga acte délictueux te ñu identifier la Eh, ki nga ko def am na droit porter la plainte te soo deful ndànk daan yu métti lañ lay teg da nga tëdd kaso lu yàgg te soo deful nag ni ngi la simi dax la police wala dax la gendarme. alors euh, droit à la protection maanaam droit ci ñu aar la xale yi dañ ko am euh, fi mu ne nii nag ñëpp ñu ngi xalaat xale yi nekk ci euh, mbedd bi yéen lan ngeen digle ngir ñu mun a aar xale yooyu en tant que organisation buy saytu aussi àq ak yelleefu doomu aadama. waaye ñun ñu bëgg rappeler nguur gi rek mooy ba lu ñu wax ci am matière protection am na au moins cent mille enfants talibé yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi te bokkuñ ci protection xale yooyu nguur gi dafa am obligation pour protéger leen ngi rafetlu préfet Fatick mi nga xam ne xaarul nguur gi nekkoo defal moom moo jël initiative recensé daara nekk ci département Fatick yëpp commencé di delloo xale yi seen i waajur yi di ñaan yeneen préfet yi ak état yi pour ñu dugal ci seen loxo pour que bépp xale boo xam ne yaa ngi ci biir daara fii ci biir Sénégal ñu delloo la say mbokk ndax daara yi bëri fii ci biir Dakar ak ci biir Sénégal seen i nekkin maanaam fi ñuy nekk bërëb yi ñuy nekk du ay bërëb yu sell kenn mënu fa confiner xale ci période euh, coronavirus kon xale yi nañ leen delloo seen waajur yi fexe ba seen waajur yi toppatoo leen ñi nga xam ne nag du ñu ay taalibe te nekk en rupture avec leur famille su dee mënuñu identifier seen famille pour delloo seen waajur yi état bi jël leen yóbbu centre Gindi wala yeneen centre ñu nekk fa dem mbir mi passé étranger yi nañu dem ci seen i consulat seen i ambassade ñu xeebi ñu delloo leen seen waajur alors crise euh, sanitaire bi nga xam ne coronavirus moo ko waral ni ko Sénégal géré yow ban jàngat nga ci am. waaw ni koy ni koy géré ba léegi wax naa ko sànq rek. Euh, ñëpp daal bokkuñu ci protection bi wax naa ci affaire enfant talibé hmm. waaye tamit gis nañu ni que euh, état day xaar toujours ba benn problème am ñu doog a dañ koy faj. fu mu nekk nii mbir mi su continuer di évoluer maanaam di gën a garaaw tôt ou tard dinañu décider confinement de la population maanaam ku rek nga toog sa kër dootoo gën te boobaa ñi nga xam ne maire mi nga xam ne chaque jour day dem ci biir marché jaay doo ko mën a am dépense wala mool bi nga xam chaque jour day dem foog mu dem géej doo ko am dépense ñooñu dootuñu am li ñuy lekk moo tax dès maintenant non seulement war nañu maanaam euh, débloquer xaalis bu takku am na wax nañu cinquante millions waaw waaye loolu dafa doyul soo seetee ñi nga xam ne ci biir Sénégal dañu soxla dañu soxla ndimbal nekk ci précarité mm. cinquante milliards dafa doyul ñun dañu xalaat ne war nañu mën a yokk montant boobu doubler ko wala tripler ko ba pare mettre en place mécanisme pour que ndimbal bi su jot saa yu saa yu saa yu jotee rek ñu mun ko jotali ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yelloo nu mu gën a gaaw nu mu gën a yomb te duñ fa nekk di buuxante duñ fa nekk di génn ci biti di mettre en danger seen bopp. waaw ñu bëri sax nan lañ koy séddalee ak ñi ko war a jot ndax dinañ ko jot fi mu ne jaaxal na leen. voilà loolu yëpp day war nañ ko xalaat léegi waruñu xaar ba problème bi ñëw ñuy dugg a jóg naan dañuy xalaat dañuy la ñu war xalaat loolu. am na ci biir dëkk bi ñoo xam ne ci humanitaire la ñuy liggéey ñu mel ni Croix ñu mel ni ay Oxfam ay ENDA ñooñu yëpp am nañu expérience bu takku même ci biir nguur gi am nañu am expérience bu takku ci wàllum humanitaire nañ leen woo ñu daje ñu toog ñu xalaat n'est-ce pas mécanisme boo xam ne euh, ci moom la jaar mun a nekk ay euh, ay mécanisme de transfert d'argent par mobile mun a nekk tamit distribuer euh, ay ceeb ak ay dund ci jàkka yi ci église yi yooyu yëpp mun nañ ko def mais foog ñu xalaat ko léegi nest pas bañ xaar ba mbir mi jot ñu doog ñu doog nag commencé xalaat naka lañ koy defee. beneen mbir aussi bu xaw a xajamal euh, yëf yi Seydi sama mooy euh, sénégalais yi nga xam ni daanaka moo xam ñi nekk ci réew mi ak ñi jóge bitim réew danoo yaroo seen sago wala la leen neex rek la ñuy xool di ko def xëy na mën a gën a yokk jafe-jafe bi ak coronavirus. waaw je crois que il faut que sénégalais xam ne amuñu droit n'est-ce pas mettre en danger la vie d'autrui kenn ci ñun amul droit n'est-ce pas euh, mettre en danger la vie d'autrui Sénégal ci bitim réew. loolu ah. leen ci topp aussi. ah yoon mun nañ ci topp bu baax a baax. mun nañ tëdd kaso mun <laughs> bu boobaa ñi nga xam ne ñoom la ñoom lañu mettre en danger seen seen seen bakkan mun nañu porter plainte état bi sax mun na leen topp procureur mun na leen topp. Mm. kon il faut Sénégal yi xam ne ñu nekk ci bitim réew xam ne am nañu droit ñëw seen réew kenn mënu leen seen réew su dee confiné yoo leen foofu ñu fi nga ne foofu la ñu nekk am nañu droit ñëw eggee ci biir frontière bi nañu signalé wu pour que autorité yi mu leen a toppatoo seen seen wérgu yaram su dee am nañu jàngoro bi ñu mettre leen en quarantaine su dee amuñu jàngoro bi ñibbi dem seen kër waaye ñëw rek eh, dugg ci ay ay ay ay ay ay yoonu bukki dugg ci biir dëkk bi dem sa kër Ah, dem ci sa gox contaminer ñëpp je crois que loolu dafa rafetul diine nangu ko yow nangu ko te képp ku koy def rek na nga xam ne yow mun na ci fekk. ba tey ci xeexum coronavirus bi euh, gis nañu opposition bi ak euh, président Macky Sall euh, daje waxtaan muy loo xam ni ñu bari jàpp nañu ne am na solo yow ban jàngat nga ci def. man tamit maa ngi koy rafetlu maa ngi koy rafetlu parce que fu mu ne nii ñëpp war nañu ànd n'est-ce pas pour xeex jàngoro bi waruñu fi nekk ci di di dugg ci ñeneen coow yoo xam ne ay coow yu ñàkk solo la. woote dafa am solo pour que mu consulter ñëpp euh, war nag nekk ñëpp ànd ak moom ah, su dee gis nañu nu muy doxalee euh, dafa baaxul war a war na ko améliorer war nañu ko mun a wax. Assemblée nationale tamit lépp li nga xam ne laaj na ko pour ñu voter ko pour jox ko ay pouvoir war ko ko mun a jox waaye ci kaw. poser ay questions yi nga xam ne war nañ ko poser leeral mbir mi fexe ba n'est-ce pas mu jaar yoon mu nekk njëriñu askan wi waaye loolu suñ ko deful nekk ci eh, eh, eh, situation d'urgence ñu toog ba ëllëg mbir mi passé ñuy ñu naan waaw benn butéelu coton nañ ko jënd ay vingt mille francs wala ay cinquante mille francs je crois que loolu tamit dafa rafetul il faut que day mel ne ñu jëlee matuwaay pour éviter que alal bi ñuy dajalee pour xeex coronavirus alal boobu ñu bañ ko pasare pasare wala boog mu am ñoo xam ne euh, dañ ko jël di ko luubal euh, et cetera. kon da nga jàpp ne opposition bi dañoo war a jouer benn rôle veille. dañu war a jouer seen rôle dañ ko war dañu war a jàppale mesure waaye dañoo war a jouer rôle de veille eh, média yi war na jouer rôle de veille droit de l'homme war na jouer rôle de veille ñun yëpp war nañu rôle de veille loolu kenn mënuñu ko xaañ dañ ko war a jouer parce que ko jouer rek. n'est-ce pas euh, xeex bi nga xam ne moom lañu ñu mën xeex boobu mun na mën a nekk très efficace. Mhm. xëy na sànq waxuñu ko rôle kilifa diine yi aussi euh, ci euh, mbir mi yow noo ko gisee. waaw rôle bu am solo la il faut que état xam ne Sénégal dëkku diine la daanaka presque Sénégal yëpp. ku nekk am na loo gëm surul diine catholique diine musulman wala wala religion traditionnelle man dama defe ne nguur gi warul utiliser warul rek di jël ay ndogal li naan kilifa diine yi appliqué leen dafa war a fexe ba kilifa diine yi bokk ci sensibilisation bi fexe ba xalifa général des mourides ak kilifa ci mouridisme tijanisme ci jàngo bi ci ci ci religion traditionnelle ñëpp ànd ci sensibilisation bi dañ ñu dañu am kaddu dañ leen di déglul lu ñu wax taalibe dañ koy appliqué Sénégal lañ koy appliquer kon ñu ñooñu dañ war a nekk tey n'est-ce pas ay acteurs ci biir sensibilisation bi acteurs ci biir sensibilisation waruñu fexe ba ñu defee ne mesures yi ñu ñu leen koy appliquer dañ war a fexe ba ñu jël conscience ñoom ci jàngoro bi te su ko jël nañu déjà confiance mm. war dañu war a fexe ba ñoom ñu participer ci sensibilisation yi foog télé yi tamit yóbbu seen micro di koy tàllal kilifa diine yooyu ñu wax ñaax askan wi. pour que évidemment ñu mun a adopter comportement yi nga xam moom moo ñuy aar mun a tamit conforme ci mesures nga xam ne moom la état bi jël pour aar askan foofu la ñuy sax sénégalais bu ci nekk aussi war nga xam ne wareef la ci yow nga sàmmonte ak mesures ñu jël. absolument absolument vraiment ñu ngi ñaax sénégalais yépp ñu respecté mesures yi parce que ñun ñëpp suñu sécurité ci la yem. jërëjëf Seydi Gassama ma fàttali ni yow yaay euh, directeur exécutif Amnesty amoon nañu mbégte la ci